li ci yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel yàlla nañu bàyyi xel yàlla ci ay ndigalam ak tere loolu moo nu fi indi moo nu fi bàyyi waaye maa ngi moytuloo sama bopp di leen moytuloo mbokk yi tooñ mbokk yi tooñ bàkkaar bu rëy la jikko ju ñaaw la day lekk ñaawte fi nit di jur ak noonoo diggante nit ñi di ja di jaxase dund gi di yàq dund gi ba nit ñi nekk ci fitna tooñ baaxut ma ci xeet tooñ yëpp bon tooñ yàlla ci yées tooñ sa bopp ci la ndax saa booy mooy yàlla yaa ngi tooñ sa bopp ndax lu ci nekk ci aw tiis yow lay dal boo lëggee yow rek lay wàññi waaye bokk na ci tooñ yi gën a mat a moytu mbokk yi tooñ sa moroom jaam moo xam na nga koy tooñ ci jëmmam moo xam da koy tooñ ci alalam wala da koy tooñ ci ab deram ba yéen bi wax ne sunu borom nee naa dafa xaraamal ci boppam tooñ kon bu leen tooñante kon day bañ kenn tooñ ci waroomu jàmm jël dara ci àqam ci jëmmam ci njabootam ci alalam waaye ci ab deram jul israil wax ne képp koo xam ne tooñ na mbokkam fii ci àdduna na ko lijjanti balaa bis penc nee na bis xaalis amu bu ñuy joxe waaye aw yoo fa nekk saa boo tooñee sa mbokk lijjanti woo ko ba faatu na nga xam ne tooñ googu du rees bis dana ñëw ñu taaj la tàj loolu mooy salaam ne bu yomal xayma jaam dañ koy samp ci kanam jaam yëpp am kuy woote ne képp koo xam ne diw mii di doomi diw amee la noonu àq ñëwul nee na ñu ñëw ku ñëw jox la sax bu nee ba aw yiwam jeex wala amatu yiw ñu jël ci ñaaw jëf ñam doon tooñ sëf ko loolu mbokk yi mat naa mooy moo tax nit danay def lu baax waaye tooñ tax lu baax la du fekk bu yëfee ci àdduna kenn du ko gis ndax tooñ yi bu dee yomal xiyaam nag danañ jël yu baax yi ñu defoon fayee ko ñoom doon ko ak ñu jeexal kon lu ma a moytu la ñu bàyyi xelit ne lu nit am am doole wala lu mu bari bari pexe wala lu mu mën a mën a lëntal bàyyi tooñ nit ñi bu mu jàpp mukk ne tooñ gi bu ko nit ñi gisul rëcc nga tooñ du rees mbokk yi euh, ñu bàyyi ko xel baax a baax faaw ñu xisaab bi faaw ñu bëggal tooñkat bi ak ki mu doon tooñ yomal xiyaam danañ taxaw ci kanam seen borom yàlla atte leen ci attewukaay boo xam ne fa la yem foofu kenn du fa tooñ kenn foofu it amul kuy dox ci diggante bi di lijjanti foofa neexale neexale ngir mucc amu fa euh, shahadatu suuf mooy seere loo xam ne xam nga lu dëgg lijjanti ba jàll amu fa dëgg rek fay am ndax boo demee cër yi nga doon jëf mooy yàlla di sol cër yi ñooy taxaw di la seere ci kanam sa borom bi sàngam wax bi sàngam ci barab sàngam def nga nangam boobaa lay jeex loolu mbokk yi nañ ko toj suñu kanam suñu borom nee na pour jàpp mukk yéen islam loolu waxal waaye julli ñëpp dugg nañ ci biir yàlla daa daa bàyyi daa yëgut tooñkat yi xam nekk ci tooñ di def lu ko neex mu mel ne dugub jig na ko mel ne wàññiwul ko dara borom bi nee na déedéet yàlla daa jublu yeexele bis ba nga xamee ne kenn du mën a euh, tëj say bët ba jëpp day xulliku ndax jàqare lu metti bis booba leen di nekk képp koo xam ne mbugalu la fii ngir fekk tooñ xamal mbugal daan na la gën a metti bi ma xamee ku ñu mbugal ci àdduna nag tooñ nga jeex bu yemal xamee nga mujj waaye koo xam ne dafay nekk di tooñ te tooñ nga mel ni da koy jib dañ bàyyi xel ne jibu ko borom bi nee na bis la koy nége soo bis booba su boobaa dana xam ne tooñ baaxul tooñ yow day xalaat nee rek rek lay juru jàmm bu yemal kon mbokk yi nañu mooy tooñante te bare na loolu ci réew mi nag waaye nañu jàppalante it nag ci lu baax te jàppalante ci moytu tooñ xeet tooñ yëpp ak julit wërta tooñ wërta seetaan ñu tooñ wërta bëgg ci ak tooñ saa boo yëgee ne tooñ am na rek munkar la xamal ne munkar la te munkar nag yonent bi salaam noonu na dañ ko war a dindi ku mën a wax ba dañ waxal ba mu dañ ku mën a jëf ba dañ jëfal ba mu na la mett ci kon saa boo déggee ñu ngi ay nit ci alal ci seen der ci seen euh, jëmm nga na nga xam ne yaa ngi ci biir tooñ ñu mbugal ka tooñoon la mbugalaat boo ca manee wax ci waxoo ca bu yemal xaamee dañ la mbugal ndax da ngaa nopp ci mun kar la ca mun ko ci dañuy wax ne euh, dëgg ku ñu war a wax ci ko ki ko def saytaane su muuma la saytaane la da mënta wax waaye saytaane la saakitu anil xaqi cheytaanun axrar kon ñu bàyyi xel baax a loolu moo taxit képp koo xam dañ laa yilif jël digal xam ne tooñ la daa war a bañ kenn amul sañ-sañ nit ci loo xam ne yàlla da koo tere tooñ yàlla da koo tere moo tax ku lu ko mën a digal da nga war lànk buñ la lu ñu mën a loolee boo léegi muy aw yiw waaye wari surtout topp kenn ci mooy yàlla te tooñ mbokk yi mooy la nit di topp ndigal la jàpp na ci li ñu war a nekk lañ nekk la ku la mën a jilif ak lu mu mën bu ndax yaa te boo bàyyi xel loolu mooy tooñ ndax yàlla tëkku na tooñ wax na ne tooñkat day du taxee borom bi nee na tooñkat yàlla bëggu ko subhaanahu wa taala nee na yàlla du gindi ab tooñkat yàlla dana alal tooñkat yooyu yëpp nag kon war naa tax ñu bàyyi ko xel te jéem a rafetal suñu dund jéem li lijjanti suñu bopp la bis ñu ci ñëw kuy def suñu lu baax lu ne fexe ba lu baax la mu ko yàq waaye lu baax loo mën a def boo ko booleeg di tooñ nit ñi tooñ sa moromu jàmm boo léegi du la ma njëriñ te ci fii ci adduna yi dana tax yu baax ya ngay def kenn du ko gis nag day def lu baax yu bari waaye tooñ gam ko booleel tax na yu baax yi kenn bu yomal xaamee du ci am aw yiw yow day salaam noonu na sunu boroom day danay bay bayal ab tooñkat waaye du ko bàyyi dana koy bayal daal nag waaye bis bu ko jàppee mu xam ne yàlla jàpp na mooy li borom wax alxuraan ne wa kadaalika axzu rabbika idaa axzal quraa téyeeg suñu borom jàpp suñu borom bu àgsee rek ñu xam ne jàpp na la bari waaye nag tooñkat yi fi yàgg jaar yi bari doole yooyu ci àdduna dëkk soñ nit ñi waaye loolu nag mooy mbirum dëpp ba yàlla waxee ci mbirum ña doon def mbirum ngóor jigéen te eh, jamono ci yàlla lut alayhi salaam ne yàlla wëlbatee kaw ci seen suuf ba muy jeexal aaya ba da caa teg ne wa maa hiya min az-zaalimiina bi ba'iid lii nag ab tooñkat fu mën a nekk na xam ne mbugal mu mel ni maa ma ko raw soriwul kon waxtu ne mën naa wàcc ci kaw jaam yi nañ ko bàyyi xel baax a baax yóbbee salaam waxoon ne na nga dimbale sa mbokk bu tooñee ak buñ ko tooñee benn waaye ne ko ah mbokk muñ tooñ de xam nañ nuñ koy dimbalee dañuy taxaw ci wetam ànd ak moom te loolu mooy li jaadu saa buñ tooñee nit nga xam ko loo ca mën def ko boo mënee wax ba mu dañ waxal ba mu dañ tooñ ko dañ boo mënee jëf ba mu dañ jëfal ba mu dañ boo ko mënul soxal nag naqari ngay ñaan yàlla yàlla teggi tooñ boobu waaye boo mooy leen yëgoo dara mel ne sa yoon nekku ca wala sax mu neex la xamal ne yaa ngi ci biir tooñ boo lëggee dañ la bëgg laale loolu waa ji ne ko waaye daal ab tooñkat moom nan lañ koy dimbalee mu ne da ngay téye ci loxoom ne ko yaa tooñ moo tax mbokk yi tooñkat yi nañ leen wax dëgg képp kuy tooñ nañ ko xamal ne ko yaa ngi ci tooñ te li ngay def boo ko bayiwut du la jëriñ fi dana la alal fii ci adduna alal wàllaaxira waaye nopp ci jaaduwut dañ ko bàyyi xel baax a baax loolu ndiglu leen bay salaam te moytu ak tooñkat ak ku ñu ku ñu tooñ nit buñ ko xasee tooñ saa bu ñaanee yàlla yàlla nangu ñaan donte bu yëfër la sëriñ mag bi ragal ba muy lim ñi nga xam ne suñ ñaanee yàlla mu nangul leen boole woon na ca kadalika al mazlumu mutlaqan walaw yunsabu lil kufri kama antum raw ab tooñ bu tàllalee loxoom yàlla na ko yaa rabbi lépp lu mu ko ñaan ci kaw ko tooñ yàlla na mu ñaan doonte aji tooñ ji kiñ tooñ ab yëfam kon rawatina tooñ ab jullit buy góorgóorlu baax nga di tooñ loolu mbokk yi wóorut nañ ko moytu am na koo xam ne jàpp mukk ne nga la jaam yàlla joxe doole na nga ci jaamu yàlla waaye bu ci tooñ nit nga xam ne tooñ day ak mu jëm réccu rek la tooñ ak mu jëm réccu la yow mi tooñ yaa ngi tëdd nelaw jàpp ne yaa ngi ci jàmm ki nga tooñ ma ngay xoole di ñaan yàlla yàlla nga dégg ñaan nga te yàlla dana ko dana ko nangu li ñu ñaan kon nañu musal suñu bopp ci mbugal musal suñu bopp ci ay toppaan nga yoo xam ne bu ëllëgee mu topp ñu fa mu jëmee lu baax lu mbir yi bari bari nag nañu xam ne ay jullit lañ nañu xam ne dañuy faatu ci dëkku bi te bis bañ ci dana ñëw léeg nag nit ñi def jëfin woo xam ne day mel ne gëmuñ yàlla gëmuñ ne bis bañ ci dana waaye bis bañ ci yore la mbokk yi la aatiyatun laa rayba fiiha suñu borom moo ko wax de bis buy ñëw la nañ ko sóoraale ci suuf dund képp ku ñu jëfalanteel ku ñu jaxasool nañ ànd ak yow ci loolu soo nekkee ci dëgg nañ nangu na ci dëgg nga nekk waaye soo nekkee ci lu dëgg nañ la wax ne ci dëgg loolu mooy li yàlla bëgg boo dee boo léegi yow sa yoon du ci waaye léeg-léeg musiba am sa yoon nekku ca waaye ñu sëpp la ca bàkkaar ndax dañ caa dañ caa ànd wala dañ kaa nopp ci war a joor a nopp yàlla yàlla boo dee dimbali